damay sacrifier suma bopp sumay doom ak sumay sët waroo ñun ñun comme man maa yor deeke sama baaboo pour mu dox problème la ñoom ñooy toog seen biir kër yi di jooy di yuuxu suba bu élection jotee ñooy votel Macky mais li mu la doon wax sànq génération sacrifice foog mu am bu neexul suñu mu neex suñuy doom loolu moo waral ma ñëw mari bu mu tëj dama bëggoon mu jolli ma si mu nekk bénéfice ay cent mille mari ñu ngi simiti ñu tëj kii taxul ñu dañuy remonté loolu moom boo soxlaa yeneen ma dolli la ko tey ñoom seen gouvernement sacrifice la laaj waaw dem nga hôpital Fann est-ce que dem nga hôpital Fann amul douche demal cardiologie nee nañ Colisée yi dañ leen subventionné c'est pas vrai ñun am nañ ay plus de dix ay jam ñaajo balaa nga kaa